niki dharifatun wa dhirafun dégg nga maridatun wa miradun dégg nga failin wasfa failin naka unsa naka noonu muannas ba wa shaa fi wasfin ala faalaana nee na siiw na ci sifa soo xam ne dafa yor wasnu faalaana dégg nga aw unsayayhi wala ñaari muannasam benn ba mooy borom alif dégg nga ah wa saa fi wasfin ala faalaana nga def niki benn ba mooy faalaa benn bi mooy faalaanatu faalaanatun niki gadba wala gadbaanatun wala gad dégg nga nga ne gadba wa gidaabun yam um gadbaanatun wa gidaabun kooku faalaa ak ñaari mu annasam yëpp danañu leen ko jam mooy wa shaa fi wasfin ala faalaana aw unsayay aw ala faalaana ni ke xumsaanu dégg nga aji xumsaanu ci góor wala xumsaanatun nga ni ximaasun ay daamirul batn wa ximaasun wala faalaana wa misluhu faalaanatun naka noonu fu'laanatun niki xumsaanatun jigéen nga ximaasu wa nisaaun ximaasu walzamhu taqool fi alun xam nga ni gis nga ni moom moo gën a bare ay place ci mboolem jamu taksiri walzamhu taqool fi alun fi naxwi tawilin wa tawilatin qufi failun ji ismu fail te ayin gay waaw kooku ak muannasam failatun fi alun rek tawilun rajulun tawilun wa rijalun tiwalun mar'atun tawilatun wa nisaa'un tiwaalun fail kooku moom nga cay taxaw wa bi fuulin failun naxwu kabit nee na wa failun danañu ko jam bi fuulin wa yujmau failun bi fuulin ni ki kabidun wa kuboodun yuxassu gaaliban maanaam wa yuxassu wa kabidun kabidun def ko mubtada wa kabidun kabidun yu xassu danañu ko jagle xaaliban lépp ci jëfandiku ci wasnu fuulin nga ni kabidun wa kuboodun kazaaka yattarid fi faali nis man mutlaqal fa yattaridu dana xiyaasu kazaaka moom fuulun ci lanu ne léegi dana xiyaasu ci faalin jo wasnu faalin ju lisim waxunu sifa ni ki saabun de saabun aji jafe kooku faalun la waaye sifa la kenn du ca wax suubun déedéet dégg nga fi faali nisban mutlaqal faa boo xam ne maanaam lu ñu mën a maase faaga muy faalun wala fiilun wala fuulun mutlaqal faa ka kaabin wa kuubin ma ci lu ñu daam wa jundin wa junuudun wala fiilun ni ki dersun wa duruusun kon nag kaabun faalun jundun fuulun dersun fiilun yëpp ñu di wax kuubun ak junuudun ak duruusu looloo tax mu ne mutalaqal faay mbir mu ñuy boyal maska faam da nga ko daam wala da nga ko kasara wala da nga ko faat dégg nga moo tax dafa ni laxoo ñeel na ko maana wa faalun dañu ne wa faalun it laxoo ñeel na ko wasnu faalun bi fatxatayni ni ki asadun danañu ko jamoo fuulu nga ni al usudun usudun ay gaynde mu daal di ne nag waa wa filaanu sama la làmb na lil fuaali dégg nga wa lil fuaali filaanu samal dégg nga sama la lil gisuma baax noonu la daal filaanu bi katin wasu mu ne wa shadda siiw na nag moom filaanu fualaanu fil farisi moo ci topp siiw na moom filaanu fii xuutin ci xuut ak qaac xuut jën qaac bayaal pak maama baahaahuma ànd ak lu niroog ñoom ci fuclun ju ayin ga ràgg ni ki kuusun yi firi ab gut wa qaaci maanaa nga xam ne dafa ràgg faalun la ni ki qaacun qayaacun qawa dégg nga wa ñu naan koosun wa kiisaan wala qaaun bi jaanam alif la wa qiicaan wala taajun mbaxane buur tiijaan filaanu bokk na siiw na ci xuutin ak qaacin ak lu niroog ñoom kii mbijaanam waaw la damm jiitu ko kii mbijaanam alif fatt ji kooku filaanu siiw na ci ñu naan xiitaanun wa qiaanu ma ma daahaahuma wa qalla néew na filaanu fi gayrihima nag ci lu dul yooyu yaar dégg nga lu dul yooyu yaar moo mel ni ki ficlun ki qinwun wa qinwaanun wala faalun gazaalun wa gizlaanun kooku néew na ca daal ma ngi bare ci caa ni mu waxe ci xuut ak qaa lu ak lu mel noonu dégg nga wa faala nisman wa failan wa faal gayra muallil ayni fualaanu chamal fualaanu mubtada la chamala làmb na faalan isman faalan joo xam ne dafa nekk lism dégg nga kooku moom fualaanu danañu ko ko jamu dégg nga fa taqulu saqfun wa suqfaanun wa fai wa faala nisman wa failan te muy lisim xunu siba ni ki xabibun ab caru garab wa qudbaan wa faalun dégg nga de ni ki zakarun góor zukraan baladun buldaan dégg nga yëpp nag lisim la de benn du ci siba doonte sax lisim ga du cosaan sifa la woon waaye dafa mujj ñu fa ustumila istimal al asmaai ka abdin xam nga abdun sifa la woon ci cosaan rajulun waaye abdun xurrun aji gore la wala abdun aji ja ab jaam la sifa la woon waaye léegi nag jara majra al ismail jumhudi jaamidati abdun léegi kenn xoolatu ci maanaam sifa moo tax ñu wax ubdaanu abdun wa ubdaan lu ne isman walaw bil galaba faalun isman wa faalin isman wa failan wa faal gayra muallil ayn faalan jooxani aywa du muallin du du du gayra muallil ayn nee na kooku fualaanu chamala dalika faalan juraagul ak ayn dégg nga niki kuramaau wa failan lanu waxoon dégg nga nga ni karimun wa kurama wa baxilun wa buxala raxifun fualaanu lanu wax de waaw fualaanu lanu wax aywa fualaanu bi dammil ayn waaw kay waaw di ki saq qadibun wa qudbaan wa zakarun wa zukraan wa baladun wa buldaan wal muraadu lismiyatu fi ljamii walaw bil galaba ka abdun ubdaan wa amma tarimin wa baxiilin fualaa kadaa lima daahaahuma qad jucila nee na wasnu fualaau jam u lay doon ñeel karimin ak baxiilin ka daanaka noonu lima daahaahuma lu niroon teeg ñoom te min kulli wasfin li mudakkarin aaqilin su du laysa ala laysa bi xusuusi wasni failin de taxul la yépp sifas mudakkar buy aaqil te boo failin la ni ki karimin ak baxiilin wala faailin ni ki aaqilin wa oqalaa wa faadilin wa fudalaa dégg nga wa shadda amirun wa umara ndaxte sifa la nu waxoon li aaqil muzakkar amir nag muzakkar la aaqil waaye da dul sifa amir mooy buuru réew rek buuru réew buuru jaysh maanaam kilifa jaysh ak buuru réew ñoo ñoo amir wa naaba anhu afcilaau fi lmuallaman wa madcafin wa gayru daaka qal nee bu fekkee ni sifa soosu di muzakkar aaqil dafa laam ga dafa ràgg kon fu alaa'u kenn du ko ko def moo tax nabiyun ak waliyun ak wasiyun kenn du ca wax fu alaa'u af'ilaa'u lañ cay wax anbiyaa'u awliyaa'u awsiyaa'u ganiyi nga ni agniyaa'u mu'allama dégg nga moom la ne wanaaba anhu afilaau yooyu afilaau moom lay doon nga ni ambiyaau awliyaau awsiyaau agniyaau wa mudafin ak mudaf ni woon naa la bunt bi moo tellu laam ak mudaaf ñoo ciy bokki atte dégg nga mudaaf kookoo tam ni ki shadidun wa ashiddaau wa xalilun wa axillaau azizun aizzaau kon afilaau mooy ku wutu ci yaar yooyu muallul ayni wala mudaaf fawaacilun li faw wa xayru daaka lu dul loolu nu la wax nag xalla néew na ni ki sadiqun du muctallu laam du mudaaf te ñu di jox asdiqaau afilaau nasibun ab cër moom du sax sifa du sifa sax moom lisim la nasib ab cër sahmu nasib bi maanaam sahm nga naan ansibaa kooku fa wa samaayun la ci lisim ji ak ci li kii nga xam ne moom maanaam du mu'talu laam du sax wa faa'ilaa'u wa fawaa'ilun li faw'alin wa faa'ali wa faa'ilaa'u ma'a naxwi kaahili fawaa'ilun jamu taksir lil kasra la li faw'alin ñeel lisim ji yor wasnu faw alin ni ki jawharin gani jawa jawahir wa jawrabin gani jawarib fawaid wa faalin bi fathi alayni ka xaatamin wa taabain xaatam li ñuy takk ci loxo taaba li ñuy kaase kaase de gani xawaatim ak tawaabi faalin wa faailaa ni ki qaasiaa wa raahitaahu li jixaril yarboo غني قواصع رواهب نافقاء غني نوافق مع نحو مع نحو كاهل ولا فاعل جوخاني موم ددول صخ صفه خنا دي لسم كاهل موي جانخاي جانخاي في ما وراء العنق ما كاهل وحائض wala faailin sifa aaqil la waaye li muzakkir li muannas kookoot qiyaasu na ci xaa'id ak xawaa'id dégg nga aanis ak awaanis aanis mooy ku allati jaawasat sinna taswiji wa lam tatazawaj mooy aanis naan ko awaanis saahil wala du sifa maanaam sifa la waaye li muzakkar la xayri aaqil ni ki saahil fas wuy ngexal aji ngexal ñu ne sawaahil wala faailatun kooku su yaboo alam la su yaboo ci la la alamu jigéen la wala sax aywa sifa la ni ki qa fatimatu nga ni fawatim dégg nga fatimatun nga ni fawatim wala saaxibatun sifa la nga ni sawaaxib la inna kunna la antunna sawaaxibaatu yusuf fi lxadis wa shadda génn qiyaas moom fawaacil fi lfarisi sifas mudakkar aaqil bu doon xayru aaqil ka saahil man nga ni sawaahil bu doon lisim bañ doon sifa man nga ni sawaahil aywa niki kaahil waaye faris nag sifa la li mudakkar aaqil kooku nag fawaris yi ñuy wax kooku chaaz la moom siiw na ci baat bi moom fawaaris waaye nag chaaz la ci qiyaas ma ma ma salafoo ànd ak lépp lu yam ak moom ci te mooy bépp sifa muzakkar aaqil daal ni ki bardun qaaris sedd bu di aji tar nga ni xawaaris farasun saabiq kooku sax du aaqil moo tax sawaabiq banees na ko caaw xanaa bu doon nit saabiq aji raw ci dàqe amaa bu doon si fas-fas moom kooku moog saahil ñooy naka noonu haalik aji alku nit la nga naan hawaalik hawaalik wa bi faaila wa bi faaila ajmaan faala wa shibhahu وفعالة وبفعائلة إجماع فعالة وشبهه ذات إنه مزالة إجماعا جمع فعائل آه، فعالة نك صحابة وشبهه أكل نروغ موم نك آه، saxaabatun wala moo wa shibhahu ak lu niroog moom danañ ñëw lu niroog moom saxaabatun moo ko bu yaboo musallasul faa'ila ni ki nga kasra woon njëlbeen gi ni risaalatun nga ni rasaa'il saxaabatun nga ni saxaa'ib wala dañoo dam njëlbeen nga ni ki zu'aabatun aw jubb nga ni zawaa'ib kon loolu mooy fa'aa'il musallasal faa ñu door ni dikk ci wa shibhahu ak lu niroog fa'aa'il ci moo xam madd la alif la ni fa'aa'il wala waaw la wala yaa la ni ki nga ni xalubatin muy waaw wala saxiifatin bi jaan nga yaa wala yooyu faalatin bi jaan nga alif la ni ki faalatin nag yooyu mu waxoon wala waaw la ni ki xalubatun naaga gu ñuy rat nga wa xalaib wala saxiifatun dégg nga kooku du sifa moom xam nga saxiifatun mooy fooyu kayit ngeen saxaif yooyu fa yooyu na nga leen jamu bi faaila wa bi faaila ajmaan faalah wa shibhahu zaata in kama masalna so yeboo nag borom taala ni ki misaal yooyu nu wax ànd naag hawtaanis aw musaadahu wala lu ñu dañalam ni ki chamalun bi fatxil awal chamal dégg nga muy loxo càmmoñ wala ngelaw bi jóge ganaar yooyu yaar lu ci ne chamal chamail la ñu koy jam dégg nga wala dañoo daam njëlbeen nga ni ki uqaabun am xoob nga ne aqaib waaw wala itam xëcc li ko xëcc waaw la ni ki ajuuz nga ne ajais naka noonu saidun bu dee alamu jigéen saaid lañ ciy wax wute nag said moo xam ne turu góor ñuy wax saaid ajuuz ñu ne ajais mooy aw musaalahu wala lu ñu dindi taam ndax yooyu was nun wax ah am benn amu ci amu ci hawtanis wa bi faali la wa bil faali wal faala jumia saxraau wal azraau wal qaysata faalaau ji nga xam ne lisim la yor alifu taanisu mamduud ni ki saxraau ab àll du sifa wala muy sifas mu annas ni ki azraau maanaam ab xaleelu jigéen bu seegut azraa u ah yooyu danañu leen jamo faala bu la neexee nga ni saxaara ak azaara wala faali nga ni saxaari ak azaari wat wat ba toppal alxaysa qiyaas ba ci bépp faala u buy lisim wala muy sifa wajal faaliya bi tasdidil yaa'i لغير ذي نسب جددك الكرسي تتبع العرب نانا ياغو ملنا ياو نسب سمو جيتي لسم دغ أه نيكي كرسي خان ياجي دو ياو نسب غون سي جوك سي بات بي فيكو ني وون باتو كرس رك nga indi yaaw nasab askanay kooku nasab juddit nasab jadit lañu koy tudde maanaam yaagoo xam ne bi nga bëggee askanay jëmee ci baat bi rong nga ko ci door a def kooku mooy nasabun jadid kooku borom kenn du ko jamoo fa aliya amma bu fekkee baat bi dafa ko yor min min al asli kal kursi ji jiifiri ab sees yaa ngi niru naag yaaw nasab li kaw baada salaasatin ba yeggal tey mushaddad nga su ko defee nga ni kër kursiyun wa karasiyun wa jun wute jundiyun moo kursiyun ñoo tolloo wasnu waaye jundiyun yaa am nasabun jadid la jund rek mooy arme bi soldat yi soo nee jund diyun mooy kenn ki wa bi faali la wa shibhihi intiqaa fi jamci ma fawqa salaasi salaasati irtaqaa min gayri ma mada nee na sahraau wal azraau muy wa jumia jam'u nañu faalaau lisim ju yor alifu taani su mam dooda du sifa wala ajra'u sifas ju sifas jigéen borom maddu googule danañu ko jamoo bi faali wala faala nga mooy nga kasra arafu mu jigi ni ki saxaari wala saxaara muy faala ci ci lisim bi bu dee sifa beet azra azra'u mooy jànq bu musul sey nga ne azaari wala azaara watba toppal alxaysa qiyaas la ci bépp faala u buy lisim wala buy sifa dégg nga nu do mu door ni waj al faaliya faaliya na nga ko def eh, muy jamu eh, taksir lil kasrati eh, li gayri zi nasabin juddida ñeel eh, li nga xam ni dafa dul boroom yaawu nasab ku ñu fa jokk ci bees ni ki kursi yun yaa ji la juddu aale wuuteeg jun di yun yaawu nasab jadid la ah. soo ko defee nag nga def ko fa aliya nga ni kara si yëglu loolu kon tatba nga topp al arab arab ci seen làkk wa bi faali la wa shibhihi intiqaa fi jamci ma fawqa thalathati irtaqa min gayri ma mada ne wantiqan tuddal bi faali la ci jamu taksir lil kasra ba tey wa shibhihi lu niroog moom ni ki faali la wala mafaila ak yooyu dégg nga lu neroog moom mooy da ngaa fàttaa njeel benn ngaa ñaareel ba indi alifu jam u gi dégg nga door a indi yaari xaraf ca kanam faali la fi jam ima ci jamu loo xam ne irtaqa kawe na yokku na fawqa salaasati ci ñetti araf loo xam ne dafa mat ñeenti xaraf dégg nga nga jamoo ko faali la ak wa shibhihi min xayri ma mada ci bokkut ak la passé ndax waxoon nañu ni lu mel ni ki fualun ña ngi koy def ci baabu kubra dégg nga ni ki suxra kubra ak suxra ah wala loo xam ne lii baabu afalu faala wala loo xam ne day failun ju mujj ragug mujj ni ki raamin wala muy si fas góor su wéru mu ni kaamilin yooyu yëpp yu ci waxoon nañu ay jam yu bokkut ak yooyu moo tax mu ni kon nag lépp lu ëpp ñetti araf ci lu bokkut ak yi passé moom nañu ko jamo noonu naka noonoot wa min xumaasi jurrida laaxiram fi bil qiyaasi waaw soo fekkee li si mu xumaasi nag boo xam ni jurrida min zaid xaraf yu wér rek la mujarrad la dégg nga nee na kon soo ko jamoo faali la du jeex lu mel ni faras daq soo ko bëggoo jamu faali la du jeex ndax juróomi xaraf la te bu ci zaida nekkoon nga wàcc ko waaye zaida nekku ci mu ne kon nooy def nag ndax faras daq soo ne vara zida ah kon nu muy def vara zida day des xaaf mu ne kon in fi al axira xarafu mujj nga ni rek vara zid yem ci daal gi wàcc xaaf gi noonu ngay xalaat def ci xumaas yi ah wala leneen dana la ci wax tuuti nag su fekkee xaraf wi nga xam ni weneen xaraf wu niroog zaida ngi ci waaye moom mujarrad la amul zaida waaye dana ci am xaraf yoo xam ni day yor lafzu zaid ni ki daal ci faras daq ci misaal daa daal ak taa ñoo bokk ñoo bokk fu maxraj catal lamiñ taa ci xarufi zaida ñu xarafi sa'altumuunihaa la bokk waaye daal bokku ci kon nag loolu dana tax ñu jeeñ daalu faras daq ni ko daanaka rek zaida nga ndax niroo nga ak zaida négal ñu dindi la bàyyi bàyyi fi juróomeel bi nu ni faraziq loolu lay bëgg a wax moom la ni gannaaw boo dàqee mujj ga mooy in fi laaxira dàqal mu mujj maanaam xadaf ko bil qiyaas nga naan farazid mu dellu wax lii ma la mujj wax ni wa raabi woon ak xarafu ñeenteel ashabihu bil basidi boo xam ne dafa niroog xarafu basid ci lafz bi ci maxraj kooku qad yuxdafu amaana lee ñu xadaf ko waxul ni bare na waaye dafa ne ama mën nañu ko dindi doona maa wàcc fa la nga xam ne tàmm bihil adadu te mooy mujj baat ba moo mottali li mu baat juróom ya mu nga ni faraziq jam u faras daq seetal daal daal ga dikkul ndax da ak ta ñoo bokk maxraj te ta moom ci xurufi sa'altumuni ha zawaid la bokk ba tey wa zaida al aadi rubaaci xdifhu ma lam yaku laynan israhu la xatama ndaxam wa zaida al aadi rubaaci ndollantal aadi rubaaci maanaam aji jàll rubaaci yi doon xumaasi su fekkee ndollantam dafa am ndollant xarafu ndollant ixdifhu xadafal ndollant loolu maa lam yaku feeg nekkul laynan di xaraf wu nooy alif waaw yaa israhu boo xam ne topp na ci moom allaz weneen xaraf wa nga xam ne xatama moo mottali baat bi maanaam israhu alxarfu laxiir bu dee xarfu ndolantu woo xam ne xarfu laxiir rek moo ca sës ah dafa doon zaidan qabla al axir nee na kon mën nga ko faa bàyyi ndax eh, day soppi ku yaa rek xëcc kasra ga ko jiitu su ko defee nooyaay ba dana tax ñu mën ko faa ba du dëgg dëgg la moom juróomeel la ci baat bi waaye zaida la su nekkoon ca jël ca ñaareel ba wala ñ- ay ñetteel da nga koy dindi waaye nag moom ñeenteel la ndax baat bi dafa passé rubaa yi waaye zaid bi ci nekkit dafa sës ca mujj ga su ko defee nañ ko fa bari mu soppiku yaa du dëgg ah, maa lam yakku lay nan israhu la xatama kon nga bàyyi ko fa mu soppiku yaa ah, ah, niki misbaax nga ni masaabix ah de kooku ci de ci loolu ne fawaaid ak sibhi niki masaabix masaabix ak faalil ñoo tolloo ci wasnu moo tax tënku ko ci faali la rek dafa ni wa shibhi ak loolu ah dégg nga su ko defee nga ni nga soppi ko yaa bàyyi ko fa ah qirtaas eh, alif gi zaid la ci baat boo xam ne ëpp na ñeenti xaraf bi ci alif gi bokkee kon soppi ko yaa nga ne qaraatis usfuur waawab gi noonu la nga ne asaafiir qindiil yaa am gi noonu la nga ne qanaadiil loolu mooy ah, maalam yàkku feeg nekkul leynan di xarafu nooy woo xam ne israfoo dafa dal di topp ci moom allaz xaraf wa nga xam ne xatama moom mottali baat ba ay alxarfu la xeer wa siinu watta minka mustad wa siina watta minka mustadcin azil id bibinal jamci baqaahuma muxil nee na baat su fekkee dafa am siin ak taaj yi xarafi ndolant ci moom niki mustadci mustadcin nag xarafu ràgg wu mujj wi xam nga xadaf na ko ndax baat bi nakira la mustadci muy ismu faayilu istadaa maanaam ma ngay jéem a woote istadaa léegi siin si ak taagi fokk nga dindi leen ndax eh, ñeenti araf nga mën a jamu jamu gi te kii juróom benn xaraf la ah kon nag fokk nga dindi yaar mu ni la nag booy war a dindi ah mu ni dindil siin si ak taagi ndax siin ak taag miim ñoo fi ndolant du dëgg daal gi ak ayin gi ak xarafu mujj wi xarafu ràgg woowu la mujj yooyu ñoom ay cosaan lañ kon uh, mu ni la dindil siin ak taa is ngir baqaahuma seen desi ci baat bi noonu mu xillun luy yàq la uh, bi binaayil jam'i ci siixatul jam'u bi boo leen fi bayee yow doo mën a wax ndax doo ma ni uh, masa taa gi dikk nga ba ko fi ak daal gi yem ca bàyyi yaari xarafu mujj te ñuy ay cosaan ayin gi ak yaa gëmu jum loolu duñ ko def ñu ne waaw mim gi lu tax teewoon ñu tàmbalee ci mim mi bokk moom it zaida la